ayca nuyoo baa ngoog Fatmata Seye Ndiir tey nag nga dugg kër Xaadim Rasoul euh, indil ñu fa koo xamante ni moom moo ko njëkk wuutu ci xalif bi tamit euh, macha allah nekk koo xamante ni moom mooy xarit bu njëkk ci euh, ki nga xam ne moom mooy Serigne Touba Khadim Rasoul moom nag euh, tey jii li tax ñu indi ko rek moom mooy dafa nekk actualité ndax fas yéene di li nga xam ne mooy màggalam di jaajëfal bu baax a baax ci réalisation bi na ci moom mi nga xam ne moom mooy Cheikh Baram ngi nii toog kon ci li ni moom mooy Serigne Modou Moustapha Mbacké mhm. moom waxtaan kàddu yi nga xam te ni moom la fësal di kàddu yu am solo mhm. yoo xam ne nii jëmale na ko ci ku nekk njiit ku nekk li nga xam te ni yëpp moom moo war a tâché sa ginnaaw ak ñi nga war a ëmb ñëpp ngir mën a daal di doxal liggéey bi ba mu jaar yoon li ci njëkk moom mooy euh, li mu ju moom mooy euh, su ma juumee euh, fukk ñoo juum mooy kàddu boo xam te ni fësal na ko di li njëkk beneen bi mu topp ci mu ne soo bëggee jiite ay nit faw nga nangu ñuy kon añ ci sa si sa poche waaye tamit di nangu ñuy reere eh, si sa der maanaam daal képp koo xam te ni njiit nga mhm. da ngay nangu say eh, nit ak ñi nga xam ne ñoom nga jiite nga leen di amal njëriñ di am loo xam te ni di nga leen koy defal ñoom ñu ciy gis seen bopp waaye tamit ku bëtam xonk mu ñëw si yow daal di tafu fekk fa li nga xam ni moom mooy njëriñ waaye tamit nangul boo wanee ginnaaw ñu nekk ci sa der ndax ku jiitu ku nekk faaw nga dégg eh, baat oto bi nga xam ne moom moo jiitu ci circulation bi moom rek moom mooy dégg pip si ginnaaw bu nekkee si ginnaaw rek kenn du ko kenn du ko klaxonné kon lool mooy ki nga xam te ne moom mooy eh, ki jiitu li nga xam te ne moom moo mën a tâché sa ginnaaw leneen li moom mooy eh, su ma juumee fukk ñoo juum mooy ki nga xam ne moom mooy njiit tey jii day nangu eh, à chaque fois tamit di def ay concertation di waxtaan ak ñi nga xam te ni ñoom ñooy ñi ko wër mu bañ a xeeb xam-xamu kenn ndax loolu day tax yow mi nga xam te ni yow yaay njiit nga mën a moytu bu baax a baax juum ndax ku dul juum amul kon ñaari kàddu yooyu nga xam te ni moom la fësal moom laa indi ci plateau bi incha allah ñu waxtaanee ko ma jox ku nekk rek ki nga xam ne euh, ku nekk kàddu euh, baat euh, ma jox la sëñ sëñ nga daal di ci dugal sa sa sa baat ngir ñu mën a jëfandikoo kàddu yooyu nga xam te ne moom la sëriñ Modou Moustapha Mbacke daal di fësal Cheikh Bara moom laay njëkk jox kàddu gi mm-hmm. nga xalaat ci ñaari baat yooyu nga xam te moom la ñu jërëjëf yaa Seyda ñoo ngi kontaan ci thème bi nga indi tey ndax indi nga kàddu mag mu ñu xam ci réew mi mu bokk ci magi réew mi. ndax buñ ne Cheikh Modou Moustapha Mbacké euh, ñëpp dañuy xam ne mooy ki njëkk a tooge xilaaf ak Serigne Touba di koo xam ne mi ngi judd en 1883 ca Daaru Salaam euh, nekk mag ci ñoom sëñ Fallou ak sëñ Saliou ñëpp ñoom moom moo nekk seen mag euh, waaye jël xilaafa sëñ Touba 1927 bi fi Serigne Touba jóge moom moo nekkoon xalifa depuis vingt 1927 ba mille 1945 la fi jóge moo tàmbali tamit fondement jumaay Touba te moom moo indi moo denc sëñ Touba Touba te loolu dafa bokkoon ci fàgguteef yi nga xam ne sëñ Touba da ko fee bàyyi woon mooy bu ma fi jógee nañ ma yóbbu Touba loolu lépp sëñ Modou Moustapha def koo def ku ne xam na ne nag ku toll ne sëñ Touba ak euh, influence bi bi mu amoon ak maanaam xëy ba ak kàddu gi ak ragal ko nit ñi ragaloon ndax fulla ak fayda bu fi jógee nga nekk koo xam ne euh, mën nañoo wax ne doo mag te euh, nit ñi xamuñu la nañ xamee woon sa wayjur boo bëggee jiite ay nit def la sa wayjur daan def dafay laaj nga am ay jikko yu yu yu kawe ak ak xel mu yaatu pour mën a doxal li ngay doxal daf cee bokkoon nag mooy lii nga wax mu ne su ma juumee rek na ngeen xam ne fukk a juum. Hmm. mooy ñëwuma ngir beru di teg samay xalaat man képp waaye lim ci jublu mooy su ma juumee na ngeen xam ne maak fukki nit ñoo diisoo daal di juumandoo mhm. kon su ma defee tamit dara bu baaxee na ngeen xam ne maa ngi ñëpp a ko bokk defandoo loolu nag yonent bi sax yàlla daf ko dénk ci alxuraan mooy wasaabirhum fil amri del diisoo ak mhm. ñi nga jiite mhm. say mbir euh, daal di waxaat wax ju am solo nag mooy comme ni nga ko waxee léegi nit ñi boo leen jiitoo bu fekkee yàlla dalaa tànn nga nekk njiit ci seen kanam nuy añ ci sa poos mooy danga leen di nangoo jox sa alal waaye nag nga nangu ñi reer ci sab der mooy ñii lay jëw di la wax lu bon bu mu tax nga bàyyi leen ndax nanga xam ne maanaam nit ñi maanaam boo leen jiitee moom faw da nga leen a war a jariñ dara mm-hmm. maanaam mënoo ne damay jariñ ñii du ma jariñ ñii doomam ji nga xam moom mooy wayjuru nag sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi ñuy dégg mm-hmm. moom mooy taaw sëñ Moudou Moustapha sëñ Cheikh Mbacke sëñ Moudou Moustapha euh, sëñ Mbacke soxna loo mu siiw mi mi ñuy dégg moom mooy taawam pour nit ñi xamul ñu xam loolu mhm. sëñ Modou Moustapha surtout sëñ euh, euh, maanaam mooy maamu sëñ Mbàkke Soxna Lo parce que moo jur se moo jur Gaynde Fatma mhm. Gaynde Fatma jur sëñ Mbàkke Soxna Lo sëñ Cheikh Mbàkke dafa mas am gàmm goo xam ne da ko daan def njaareem di mhm. séddalelu ay nag ñu séddale ba noppi mu gis na nag yi dafa des ñaar mu ne ana ku moom ñaar yi ñu ne ko yii de diw ak diwala ñoo ñoo ñoom nga waxoon jox ko mu ne ah lu tax joxoon leen li mu ne yii sëñ bi yow ñooñu yow rek lañ bañ ñooñu mënuñu leen a jox nag yi mu ne waa ku la bañ ngay def booy séddale doo ko jox kañ la lay bëgg. Mhm. dégg nga. mooy ku la dagg nga jox ko. <laughs> waaw nit ku la bañ. Mhm. booy def booy séddale yow doo ko sédd kooka kañ la lay bëgg. loolu dafa nekk ab bind bu bind bu am solo. Mhm. Euh, bi ci des mooy li mu wax ne nga nangu nit ñi nekk ci sa gannaaw sab der di ko reere kilifa day day tanqamtalu booy def ku ne lan coos rek nga ne ko coset bu yàggee. doo doo doo doo jiiteeti kenn. da ngay dégg nit di dal ci sa kaw nit di la wax loo xam ne wóor na ne le xamut sa sa sa sa intention ci li ngay def naan sëñ bi lii mu def waru ko woon a def li mu wax waru ko woon a wax président li mu def du noonu fekk yow xam nga mais dangay ngay jël euh, lépp nga bàyyi ko rek nga xam ne jiite gi nga ko jiite moo tax ndax mhm. kilifa moom ñaar lañ wax dañ ne kilifa ñaari nopp lay am mhm. benn nopp bi ñi wax ba noppee ko moom benn nopp bi ñi waxagut ko moom mhm. beneen beneen bi ci des mooy kilifa day ànd ak ñaari ñaari personnalité mooy bul fexe ba ñi nga àndal ñëpp ragal la mhm. su boobaa ñuy xultu ngay am xam nga xultu ak xuloo bokkut ma saa njoogu mii wax ci suuf mii tey bu dee dañoo ànd nawlonte mhm. dañuy xuloo day ñëw ne ma saawaay tey li nga wax waroo ko woon a wax saawaay tey li nga sol waroo ko woon a sol waroo woon def nii mhm. déedéet nii laa ci ñu xuloo maak moom su jeexee nag ñu génn ànd dem bu dee nag soxay bu da nga koo moom mu nekk ci kër gi nga xam ne dafay nekk ni surga moom day xultu day dem ba ca duus ba ba ca wanag fa fa biir wanag wanaan mm-hmm. saa yi da nga waaj a soof quoi <laughs> ah, moom li muy def nii maanaam nga xam ne sa bopp ngay xulool mm-hmm. boo xuloog sa bopp ba noppi sangu génn na ci yàlla <laughs> parce que surga moom day xultu mm-hmm. kooku nag baax na ci kër gi waaw baax na ci kër gi waaye nag nawle day xuloo moo tax mhm. kilifa day ànd ak comme nawleem mhm. ànd ak i surga waaye kilifa goo xam ne ay surga képp nga fexe ba dajale leen mhm. di nga nekk ci erreur kenn du la ko wax eh, suwaay bu kon eh, yow tamit jëlal kàddu jàng yow lañ joxe sànq exemple ah, <laughs> ah, man de kee di nelaw fee sax laay ree xaw ma xam nga nag macha allah ñi seen borom kër yi nekk bitim réew du nelaw nga tax ñu ñëw ci rajo bi di nelaw rek ma jigéen Jóob jërëjëf eh, Fatimata Seye indi nga tey mag mu am solo mag moo xam ne tey jikko yi nga wane ci moom lu ci nekk boo ko boo ko seetloo ci jëmmam ak ci doxalinam danga koy daal di gis dafa am ko wayoon ni doon sa baay defe naa doon sa baay doon sa baay gën moom nag dafa teel a doon sëñ ci fànn yu baree bari na nga yëg ni keroog bi sëñ di dem ci tukkeem bi moom la fi bàyyi ak ñi nga xam ne ñoom la fi nekkal te dara yàquwul ba ni mu dellusee ci ñu war a jàng ci ñu war a jàngale ci mbay mi ci liggéey bi dara manqué wul mm-hmm. loolu nag mat gu mu matoon ak sëñ Tuubaa xam gum xamoon ni li mu def ci moom eh, xam na ni def na ko ci loolu waraloon na mm-hmm. moo tax même boo seetloo mbaa yëg nga ni suñu njiitu réew yi tey bu ñu xooloon ci moom ci ay doxalin mm-hmm. xoolal tey Fatimata Seyni nga jiite ab communauté bu toll ni yoonu murit mm-hmm. surtout ak jamono boobu ni mu mel tey suñu gouvernement yi am nañ ay loi yu bari kenn mënu koo takk ba léegi li bëgg a réglé ci réew mi réglé wul ak ci àdduna si ay luwaa moo ñu tënk kenn xamul luwaa nangam luwaa nangam. Mhm. nga dem ci kër goo xam ni la fa nekk la ñu jiite ci ay nit ay millions doomu adama la benn kàddu lañ am jëfe ndigal mhm. la ko may nag mooy xam fi ñu waroon a teg seen tànk jàng ba jàng jotee waaye nag euh, di di di ca sof li sëñ dend ak li sañ Baara doon wax li yàlla naan bu ngeen ma ragalee ma xamal leen mhm. loolu da ay tamit def ciy joué mooy nit ki bu demee ba tollu benn dimension bi ci ragal yàlla ak ci jaamu boromam euh, yàlla da koy xamal lan la koy xamal mooy fi fi mu yóbbu nit ñi loolu moo waral li sëñ Baara commencé muy su ma juumee kenn juumul mais fukk juum dañoo nangoon di déglu ay nit di déglu ay conseil te pourtant li ñu yoroon ndeysaan mënoon nañ cee defar àddina toog ci seen roq li sëñ Babacar Si daan wax naan toogal sa roq mën a kan loolu ñoom moo leen ko mayoon euh, del bàyyi nit ñuy wax ci sab der loolu itamit da nga koy gis lu bari ci yoon yëpp rawatina yoonu murit ñaata yoon nga dégg ba sëñ Abdou Lahad Mbacké daana ko kaas naan li ñuy wax ci rajo bi ci yoon wi li ñuy wax ci rajo bi ci sëñ Touba waaye ba léegi da ngay yëg ni at mu jot nit ñi di bëgg gën a bëgg sëñ tubaa at mu di jot mhm. taalib yi gën a yokk at mu jot nga gis yoon yi promotion bi nga xam ne moom la ko yàlla defal te lépp dafay delluwaat ci yàlla kon nga xam ni mhm. ñoom lépp lu ñu lu ñuy dundee rek bu fekkoon dañoo tënku mhm. uh, ci téere boobu sëñ Touba bindoon muy kun kaati man nga xam ni ñu bari ci mag ñi ci lañ référé wu da ngay gis ni àdduna bi mën naa jagee ci ñoom gis nga li ñuy jëggaani ji ci ay tubaab naan tubaab bi moo fi waxoon lii ak moo bind livre bi ak nangam sangam lépp ngi ci suñu réew mi sëñ Modou Moustapha nag kenn la ci ki nga xam ni soo ko dee jàngalee ñu ni lan la doon wax ci réew mi dalay doy nga jël ki sëñ baar di wax muy doomam jooju nga xam ni bokk na ci kenn koo xam ne ci réew mi mën nañu wax ne même bu amuloon parti politique tey bu ñu mën a wax wala même bu dee am na parti politique ku daan contribuer la ci développement réew mi wala ci ay xalaatam ci wàllu politique mënoo mhm. dugg ci wàllu politique ba génn te doo ko tudd ndax saa saa yu ñu masaana dajale réew mi pour waxtaanee njariñu réew mi da gis ni dafay teew mhm. kon sëriñ Modou Moustapha moomu bokk ci ñi nga xam ne tey kenn mënul tudd yoonu murit uuf ay rakkam ba teg leen ci yoon wax dëgg yàlla tey jële dara ñaawul kon mm-hmm. kooku le tey boo koy waxtaanee dafay am solo moo tax ma ne woon kàddu mag ñi euh, dafa am solo mm-hmm. faw ñu indiwaat valeur yi wan ko mag ñi ñu wane leen ñi nga xam ne mm-hmm. ndaw ñi ñuy dégg seen tur sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha te xamuñu fekk ay valeur kese lañu woon yal na yàlla yërëm leen te xar leen aljana xam naa mm, foofu lañ la ñuy jox kàddu gi gis nga ñaari kàddu yooyu nga xam te ni fasal na ko mu mel ni loolu mën nañ si jàng ndax actualité la ba léegi boo si jël ah, leeram eh, xam nga dafa wax ci jamono joo xam ni dafa wuutu way juram muy ku tedd gi di Sëriñ mu nekkoon ci benn kii boo xam ni koo xam wuutu Sëriñ Tuubaa yombul eh, ak ni nga xam ni noonu la yëf yi demee woon mu wan leen ne leen yan bi du man dong mm-hmm. maanaam ki fi nekkoon àttanoon na lépp mm-hmm. ci biir wax ji man li ma dégg mm-hmm. ne nag su ma juumee fukk juum mm-hmm. pour wan ni li mu wuuti terewut da ciy waxtaan ak ñam ca war a waxtaanal maanaam loolu nekk loo xamante ne bi lu am solo la maanaam nga xamante ne bi nit ñi yëg ni yow mii kat ñi booy wax mais du yow dong yaay wax mais dafa fekk ni am na ñeneen nekk ci ginnaaw ak ñëpp loo xam parce que loolu kii la quoi boo xamante ni bii wax la joo xamante ni bii. Euh, mhm. dina tax ñeneen ñeek ñëpp bàyyi xel ne nekkul ni day jël ay dogal rek. Mhm. ci ni nga xam noonu la ko war a kii comprendre nga. Mhm. wax jooju rek euh, dëgëral na maanaam kii wam maanaam nekk gi nga xam ne moom la pour mu mën a teg li nga xam ni moom la <coughs> euh, sëñ Tuubaa yoon bi mu tegoon ngir mu mën cee liggéey liggéey bu em ni bi mu ci liggéey mm-hmm. d'abord il faut que nit ñi comprendre ni Euh, wax jooju mhm. dafa am loo xamante ni moom la maanaam comme bi nga xamante ni bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge na fi mhm. ñi ko wuutu ñu mel ni yorente bi déedéet mhm. donc dafa am boo tëralu yenn stratégie tamit pour teg yo pour gën a dëgëral yoon bi mën nga indi yeneen problème mën na am xam nga te it euh, même bu fekkante bi ñu ngi wax xam nga dinañ expliquer ni même bi sëñ bi kiiwee amoon na ay tiraillement doon da ngay dégg ñu koy faral di wax tiraillement yooyu nag loolu tamit yooyu ci li waral communication boobu dafa am solo. loolu nag. Mhm. njàngat yu am solo daf ci am. Mhm. muy que ni euh, nit ki moom. Mhm. na fexe ba am ay conseil njiit la loolu dafa am solo quoi nit ñi xam ne yaa ngi leen di déglu. Mhm. mais lii sunu problème ñun ci jamono ji mhm. mooy wax dëgg fa yàlla sunu njiit yi am nañ ay conseil mhm. mais conseils yi dégluwuñu conseils yi conseils yi daanaka liggéeyuñu am na conseils yi fi jotoon a génn lañ fi wax mooy daanaka ñoom kenn consulté leen. donc maanaam fal nit ki ba noppi nag. soo ko laaj xalaat te loo aajoo ko xaat kii ko. <laughs> li Cheikh Bara wax sànq ne naw la woo ko. yaa ngi dégg moo taxit dañuy génn di xuntu rek mm-hmm. yaa ngi dégg toog toog ca wetu kii ba naan non waa ji da waa du laaj dara du kii loolu mooy li fi am quand même mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ne bi mooy mooy mbiri maanaam dañuy jël nit ba noppi te nawloo woo ko mm-hmm. yow bu fekkee ne tey damaa jël son yi bu mii wala ma jël seex Bara bi ma ne leen conseil laa leen def ba noppi te li may diri musuma leen a laaj xalaat ñi leen fay ba pare ñooñu bu ñu amee ful la dañoo war a ba xam nga seeka tamit pareen saay da ngay xam ni kii respecté wu la bul topp salaire bi nag Mm-hmm. da ngaa war a ba loolu mooy li am solo en tout cas wax la joo xamante ni bii defar na àdduna mm-hmm. réew yi ngay gis yëpp ñu jag li leen jagal du kenn nit mais nit la ay nit la mm-hmm. am na nag koo xam ne moom mooy diriger li nga xam ne mooy mbir mi mooy li son yi bu wax ne depuis murit ndigal depuis que loolu yoon wi di nekk ba nëgë ni loolu la te ba nëgë ni loolu moo continuer di dox tey jii bu sëñ mu Muntaxa taxawee ne nangam laa soxla wala nangam lii laa bëgg gaa yi ne anawaa tey bu ne woon Macky laa bëgg ñu tungam ko fi yóbbu ko Touba <laughs> dana dem Touba léegi <laughs> parce que ñii mu yaakaar ñu koy garder ñoo koy njëkk yenn ñoo naan ko jógaleew sëñ bee la soxla <laughs> waaw donc loolu la macha allah <laughs> donc man dama ci jàng ñaar ndaxte mhm. mm, jàng naa ci ñàkk xeebeel ñi nga nekk mhm. xam nga xam nga tey jii ku jiitu rek da ngay def sa xelu bopp doy na la xam nga temps yi la passé Amsatou Sow si daf fi génn bi mu nekkee conseiller mhm. ni moom depuis xaw ma ñaata weer gisul Macky bu bindee lettre du am retour ak yooyu yooyu te nga ne nit ki si say conseiller la bokk man je crois que ni yow kese bu la sa xel doyee dinañ la tege nee mm-hmm. ñaar day wane ni moo xam ci bërëbu liggéeykaay la moo xam ci biir famille yi la mm-hmm. moo xam ci fu mu mënti doon njiit yàllaa koy def nit mm-hmm. mais njiit du teree xalaatu ñi la séq toujours dafay am solo mm-hmm. loolu nag concertation boobu il faut nga naw ñi nga nekkal mm-hmm. naw loo leen def leen ay nawle mm-hmm. pour mën di respecter seeni xalaat mais njiit yi ñu am léegi nii moo xam ci lu mu mënti doon da ngay dugg ci biir société yeeg gouvernement beeg feneen ak feneen da nga ciy gis ay njiit yoo xamante ne seen xel doy na leen ñanuy wax ni ñoom la ñu tànn teg leen luñ leen wax duñ dégg amaa sax sañu ñu leen wax. Mhm. wala ñoomewul leen sax ba di leen approché ba di leen xelal dara loo xamante ni ki man El si Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm yokk leeram. bokkoon na ci li ma gënoon naw ci moom. xam nga mënoon na ni maa moom wal Walfadjri mhm. maa ko teg maay fay ñi fi ne mhm. mais benn décision du ko jël te ñi nga xamante ni dippee na leen woon ay responsable même bu fekkee ni day ñëw laaj leen seen xalaat ba pare def moom la ko xelam jox. Mhm. au moins dina concerté wu ak ñi nga xamante ni ñoom la dippee woon responsable. Mhm. loolu nag day wane ouverture d'esprit. Mhm. nit boo amul ouverture d'esprit doo mën a nekk njiit. moo xam doo mën a nekk sëriñ jiite ay nit. doo mën a nekk président de la république. doo mën a nekk chef de famille. parce que doo ni fii sama kër la maa fi joxe dépense rek du ma waxtaan ak samay njaboot. li ñuy wax xel puso la rek. mag mën na ko for nit ku ne mën na ko for. donc ouverture d'esprit dafa baax. xam nga li nga wax noonu benn bis. Euh, Zilem dafa dem am am kii dem fenn ba pare boobu kii mu waaw woom mu ne ma noo ko gisee. Mm-hmm. si la man lay laaj noo gisee lii. ñàkk la <laughs> xam nga mu ne mu kii bi noo ko gisee. Mm-hmm. man ah, man lay laaj gisee affaire bi. waaw que à la place am na yeneen njiit yoo xamante ni du <laughs> laajte. Mm-hmm. te moom yàlla ah, mayoon na ko dayoo ah, boo xamante lu mu wëgg kenn xalaatam. dafa mel ni ñun ñëpp dund nañ lu mel. merci beaucoup def def def mm. discours am pare génn dajeeg yow. daal noo ma gisee li ma wax noonu noonu la wala yow sa xalaat noonu parce que loolu mhm. day wane ouverture d'esprit comme ni nga waxee sànq njiit bu ne war na jël exemple ci loolu nga xam te ni ñoom la pour a muñ aussi parce que y a des leaders yoo xam te boo gisee euh, kàddu yi am solo mooy am na leader yoo xam te tamit dañoo mën a tontunte mhm. dañuy euh, maanaam yaawuñu dënn voilà ah. nekk ñooñu nga xam te ni boo ne benn ñu ne la fukk boo waxee tey jii suba ñu génn euh, tontu la kii mi ngi wax Amsatou Sow Sidibé man gis naa benn oustaz bu mhm. bokk ci conseil yi mhm. euh, moom conseil économique la la nekk bokkoon moom it dégg naa ko mu wax li kii wax mhm. mu ni moom bam bañ ko jëlee mu ne comme conseil ba léegi musuñu koo laaj xalaat musuñu koo laaj xalaat waaw dañu ko loo xam li xew ci penc mi ndax président mu ne ah man de président laaju xalaat mu ngi mel boobu la war a ban ak moom it mais clientélisme yi bi ñuy wax moom moo mhm. nekk noonu maanaam yow nit ki na la jàppale si kii rek nga utal ko place boo xam te da nga ko fay teg yaa xam nag noo ko tuddee ndax conseil yi loolu la rek mhm. soit bu jàppale na ma xaar ma fu ma ko fu ma ko casé rek mhm. après moom mu fay lekk xaalisam après le reste moom ça va mais loolu nag moom système la bu ñu war a jëlee fii ci Sénégal di def li nga xam ne moom la suñu njiit bu fekkee ne rek sa askan moo tax nga jóg na nga jël nit ñoo xamante ni ñu am xel lañ ñu mën a euh, xeltu toog fi nga xamante ni moom mooy place boobu di la conseil yow tamit nga nekk koo xam te ni di nga mën a développer bu baax li nga xam ne moom mooy uh, mbir yi mm-hmm. kon tey loolu laa andi woon mm-hmm. yaakaar ne ñëpp jële nañ ci uh, mm-hmm. am na solo ñu siyaare waale xalifaam moom mi uh, nekk Daaru Xuddoos sëriñ Ahmadou Makhtar Mbacke moom mooy xalifaam xam naa samedi ak jàmm sax la bis bi ñu koy amal moom mi di Cheikh Modou Moustapha ca Touba samedi ak jàmm incha allah waaw ca Touba Daaru Xuddoos incha allah yal na si yàlla yeggaleeg jàmm kon bétti tey lii laa andi woon Mm-hmm. jaajëfal Wendi Star Soft ci euh, fulaar bi. amin merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Fatmata Say Ndir en rafet na waxtu Wendi am sa téléphone toog ci te bi di defante man saa njóogu mii ku yóbbu di ko ñaanal jox ma sama téléphone. Ah, indi boobu moo yor temps bi teg ko nii. sama téléphone la de. waaw ah, d'accord ah, maa yor temps bi. jox leen ñu tampon euh, pajum cosaan. <laughs>